Mbaye Diop. Mbaye Diop waaw. doxalal ah, Mbaye Diop ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi sant yàlla. wala caméra yi yàlla julli si. Mbaye Diop nga tudd wala safara nga tudd ci hmm. maa ngi sant yàlla julli si yonent bi. xoolal waa Géeja waay ñu ngi nii. maa ngi sant sama papa di sant sama yaay di sant képp ku may bëggee. di sant presse bi di bëggal at mu àndal di ñaanal Modou Baye Fall yàlla suñu borom yokk taxawaayam. amiin parce que ñaari ndaanaan la boole. Hmm. ku xam bay Diop alias Safara xam Mbengue Mboro xam na ay adversaire la duñ du ñu accu mais nag Mbengue Mboro dama koy xamale daje naag daj dëpp de bu yaakaare ne làmb ji day yomb Mbengue Mboro nax na boppam parce que combat bi combat gañ jël la de du lu may asaaloo asa bombe te li ma soxla dama koy jëli li ma moom dama koy jëli à façon à ma manière Mbengue fu mu taxaw dinaa ko fa fekk loo fay fekk lu ma fa moom ak li ma liggéey mm. ku xam bay jóob xam safara nit ñu may caméra xam nañ làmb yi fi gën a métti fii maa ko mën mm. mengu mbooro foo taxaw dinaa la fekk. ni nga ko waxee nii noonu nga yàlla xam na loolu yow safara ngay waxal dem alliance Mbaye Diop man j'ai rien à mm. man li ma soxla du lii. kii moo gën a ndaw si di ma bëreel. ngi lay siyaar. <laughs> votre correspondant état communication. <laughs> xoolal waa Caaro yi waa Caaro yi. alhamdulilah bisimilah. na wala yàlla jërëjëf alhamdulilah jërëjëf waay si wàllu waxoon di nuyu seen Mouhamed Mbacke di nuyu sama waa koñ sama papa sama yaay sama papa dafa jàpp si làmb ji. mosul jàpp si làmb waaye làmb ji nii sama papa la see jàpp bu baax a baax di nuyu sama papa Modou Sall ak sama yaay Marème di nuyu waa Caaroy bi yëpp tund Caaroy bi di nuyu waa jàmm gën bi yëpp tund jàmm gën bi waaw maa ñëpp ak ñi ma àndal si buntu bi ku si mel ne Youssou yoole yoole sama mbokku mbër la mu waroon dem entraînement ñoo topp ma kooku sama seex la. yoole yoole kooku sama seex kooku fu may dem su ma ko gisee damay gën a am courage. te tontu baal instant yi kii dama naan ko aw lu may waxat moo xam la moo tax aw ma lu may waxat moo. déet waay avance am foo taxaw da la fay laaj lan moo tax amoo looy waxat. lan moom. waaw ba tey moom moo ngi wax ñu. làmb ji ñaata suur a si des. samedi samedi bii bu samedi suba bu deux heures kon kii aw lu may waxat moom. su bis ba. jëf ci des. lu waay jëf yaa ko moom. nee na foo taxaw dina la à sa façon moom ba dafa dox ak yow de. baax la waaw. avance su meeku boor avance su ndongo daara la bu hmm. lekk ceeb naturel jaxas ngay lekk. avance su ndongo daara jaxas ngay lekk. ndongo daara laa dëkk taalibe yi ñoo ma yee. xoolal bi. añ sax bu jotee man ma lekk ceeb yàlla xam na loolu mais buñ ci pot laay dànk ku nekk jox li ma la jox maas yi. Hmm. kii li wax nii amul làmb moo ñu fi indi signature dañuy wax. Hmm, moom xam na ne am na combat mbengu mbooro la gën a xam ne ki muy dajeel. Mm-hmm, mm-hmm, waxal bu li bu la 17 décembre. mook ay mbokkam dinañ na noo xamuñ na woon nii lay demee. ci série de victoire la toog macha allah. man ci lan laa toog. la xam Ahmed Allah Rose nga mujjee ñaar ñëpp. waaye nañ jéggi lool sax nañ wax ci leneen. yéen ñaar ñëpp Ahmed ngeen mujjee daan. ginnaaw loolu ah. woote waale na teew. parce que lamb ji man soxla ma ci dara mbooloo laaj soxla parce que kii. pare naa ci moom quoi damay ànd faire damay ñëw def lu ma def xam nga comme d'habitude di woo Mbaye Diop sama turandoo ah. Mhm. sëñ Modou Diop bu pa euh, suñu papa Modou Mbène Diop. xam nga di woo Assou Dieye sama mag ma bokkal papa mi ngi doog a jóge kaaw xam nga doog a teew xam nga gisanteeguñ mais Assou maa ngi lay woo ci xam nga di Mbaw Daouda Mbaw l'international footballeur maa ngi koy woo ah. xam nga di woo Tafa da ngeen may wuyu fii diwoo woo Tafa Dia borom Angleterre. waaw Tafa Dia maa ngi lay woo ci combat bi xam nga di woo tund da nga may déglu de ñun grand combat la ñuy bëri de dañoo bëgg a soutenir promoteur bi parce que ñi ñuy woo ñoo ñuy taxaw. Eh, xam nga noonu la demee nag benn instant di woo euh, euh, comment dirais borom Touba ah. Abi Mbaw ana Abi Mbaw Abi Mbaw commerçant mag bi. xaaral da ngay ñëw ma woo Habib Mbaw ñëw taxaw nii ñu ngi ñëw baabaa la kii dama ko seetaan mu waat barki sëñ dañoo toog dañoo toog mu waat barki sëñ Fallou ne dama lay daan ñu ñu falu dama lay daan. dégg booy est-ce que jotul sëkk ngeen bàyyiwaat ne damay daan diw. ñu mbëri mu yee bari na de. ku nekk ak li nga yaakaar man li ma ki ma gëm yaakaar ko mu gënal ma ndey ak baay te saa yi ma ko wooyee mu ñëw dama koy woo. déglu ma la kii du man yéen yéen a xamul rek mais Mbengue Mboro mi xam na yàlla xam na loolu. baax na Tafa Kese maa ngi koy woow Tafa Kese borom tuuba combat la dépassé képp kuy su may dépassé. li ngay woo bari na de Tafa Kese. yaa may dégg kii moom lan ma ko fi bàyyi bis baa ko fi bàyyi lii la am si làmb ji wër di wax ndax ñun xam nañ ñu mu di wax tamit kuñ tuddee drapeau bi ñun ay ndaw lañ mu ñëw jàppale ñu ñun dañoo ñàkk jàppale billaahi wallaahi kii maanaam moom nekkul ay waxaat de man damay woote pour ñu jàppale ma te yàlla tax muy tund jàmm gën beet caarooy bi na ma ñëpp ñëw jàppale te yàlla tax ñu xam ne lii nii sama sànn tàcc la xam nga téye dee yow yaay carte ndax yow dangay def carte ay DG yooyu doo carte yow da ngay carte carte kat yi nag laay waxal nga yëngal ba dese benn six kii la dama koy yëngal dóor ko muy six ci kattanu borom bi yaa ngi dégg may woo waa caaro yi yëpp maa leen di woo na ñëpp génn ñëw wuy si ma waa jàmm gën ñëpp maa leen di woo ngeen ñëw wuy si ma waa puut xoduba bi ma dëkk biir xay lelo gàpp tago sama papa Biram Diouf lamb ji dama la woo mu doon sa lamb Modou Dof mi toog Modou Dof borom Fatick dama ko woo yaa ngi dégg man Pout laa dëkk képp kuy séeréel Morola maa lay woo si làmb ji bépp séeréel Morola di woo sama papa Biram Diouf sëñ Mouhamed Mbacke lamb ji sa lamb la wax naa la ko keroog waxaat la ko tay sëñ Habib si bu sëñ Mansour maa koy woo soxna Faty bu maam Abdou Aziz di woo sëñ Cheikhouna seexu sëñ Omar di woo sëñ Omar tamit mun kii munul taxaw wax une heure de temps ngeen bëgg ma waxaat man deux minutes taxaw leen ma sant wala bëggoo leen samay mbokk wuy si ma bisu làmb ji Modou Baye Fall damaa fay te damaa giñ teraanga dama ko war a fay moom xam na loolu wala bëggoo leen man ma waxaat samay mbokk su dee bëggoo leen ma waxaat samay mbokk bis ma man kese ma ñëw bëre si kii dafa woo ay mbokkam ñaata ñaari mbër yi nag moom man damay taxawee. ndax macha allah mën naa ni grand combat la. am na nag fu may taxawee foo xamante ni maa ngi fi. ci ñoom ñaar ñëpp laa sas. dinañ xam ne ki ñu tuddee drapeau bi dina ñëw ak lu rëy. ku ci nekk nag ci ñoom ñaar. Hmm. na jaayante yàlla na suñu boroom defal leen tawféex mu nekk làmb ji dàq ci ci ci combat combat bi dàq ci làmb yi. Hmm. maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp. di mm. gërëm ñëpp. Mm. waaw di woo sama gars yi di leen wax ni leen ñu ñëw ci parrain bi. Mm. di woo ñëpp ci làmb ji jour boobu. ndeysaan non du lu ndaw kooku nit ku baax la sama xarit la wax dëgg yàlla nit ku baax la ñu yàgg a sequl teraanga dinaa ko wan ni ko bés ba nag moom nit ni nga ma lebal moom dinaa ko fay ba bés ko. dinaa maa ngi woo ñëpp sama gars yëpp waa défoncé xam di woo waa Guédiawaye mbaw automobile mi ngi leen di woo bat suñ Tuubaa maa ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp waaw di di di di di ñaax ñaari mbër yi di leen wax ni leen làmb la waaw làmb la yàlla nañ ci egg ak jàmm ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin que le làmb la rek làmb la mm. waaw. bés baa ngi noonu drapeau Habib Mbaw automobile maa ngi woo waa ginnaaw raay yëpp igri bâche seeraas laa ne képp kuy doomu ginnaaw raay nee nañu ragal du su naree jéegi raay day dem ba ginnaaw raay dëkk fa. jaajëf billaahi. waaw mbokk yi kon drapeau Habib Mbaw. di woo waa presse le 17 ah. décembre. Habib Mbaw auto automobile mhm. ah ay xale lañu ay jeunes lañu nekk fii ci réew mi. nangoo liggéey ah bari jom. Ah, tey li ñu am ci réew mi rek seen jom moo leen ko may. kon mbokk yi bés boobu nañ leen ko waajal ñëw jàppale ki nga xamante ni moom mooy promoteur bi. ñëw dooleel ki nga xamante ni moom mooy Habib Mbaw te di ko bàyyi xel. Habib Mbaw automobile waaw di woo